waaye nag noonu ko doon wane si ma. Mawlid Mbaye muy sa yaay yi sa ginnaaw Mbaye fekk loolu boole ñoo ngi taxaw. moo bëgg nag. waaw. waaw. wala ngeen toog délégué nee na wala ngeen toog ci suuf seen ne ko jërëjëf waaye Youssou tëgg leen sama yi sama mag sama xarit koppar yu bari di ñu ko jox ki ma bëgg ki ma jàppale boo demee ba këram ko ñaan na nga wut ñaani waajur xam nga du ko dal ah. bàyyi ma ko ñaanal bari ki dem moo jaay ci koor gi maak moom ah. daa jël koppar jox ko papa papam génn génnewaat xaalis bi mu génnewaat xaalis bi jël xaalis bi teg ko fi mu ko teg papaam ni ko lii mënu ko xamul ma lu ko doyee ndax daf koo defal ma bëgg nag li ñu waraat nag Cheikh Toumane Ndiaye jërë waaw yow ma ñëw Cheikh Abdoulaye yow sax yaa leen wax yaa ñëw tëgg leen ma ñëw ma ñëw suñu mag Youssou dafa toog suñu kilifa mu alaaji Papa Dieng suñu bàyyi yow bu ñu la gisee dañuy wàcce ndongo yëpp wàcce na ngay xam ne yaay kilifa bi kenn ànd ak sa rak Wally di ko jàppale di ko dimbali yow bëggoon ñu am benn problème bëggoon ñu toog ndax mën nga liggéey lu jëm ci kanam sa idée sa xel sa xalaat sa lépp waaw. waaw bu la waxee nga ñëw nga yegg sa biir sa toog ah Badiane Sakoro Wally sama mag ji. waaw waaw Badiane Sakoro Waly sama mag ji waaye Kéba Maria Sine may sa ah tamit kii moo ma def ni ma mel Maria Sine may bi bigge may sa bigge maar aji naar mi ci ndóor njër ka mi ci làmbaay gis nga nag journaliste yi nag barke Serigne Bamba xew bi la ñuy yàq mais ana ana kii ana gars yi ana ana ñoom kii ah tal mais Talla ñii nag moom wax dëgg yàlla dañuy yàq xew mi nag moom. bëggata bëggata bëggata bëggata bëggata bëggata masa masa masa masa tata eh. eh. xoolal bala ñu ma ngi ñaan yàlla nit booy ñaan yàlla rek te ñaanoo xew rek. ñu ñaanal ko bis tey tey du sama bis bésu kii la. ah ñun ñoo bokk luñ bëgg. ay ndaw lañ ay xale. yëkkatil micro bi. ñaan ko yàlla defal jàmm ci sëñ bi mu dugg ci mu muñ sa yokku. yàlla may ko mu jub bu rafet. ba sonn xuloo bu neex mosoo koo gis ci àdduna xuloo bi tawa kër mosoo koo gis ci àdduna yaa ne bésam bii tey mu ñëw sama takki jabar ñëwoon na takki jabaram damay ñëw sama saa seex waaw wuli fii sama génn ñëwul woon day takki jabar sama takki jabar moom dafa ñëwoon yàlla def may ngénte ñëw dama koy ñaanal yàlla muy mu ngénte man du ma ñëw naa ko jéem a ataay xuloo ba ma mais sama takk ñëwoon na yan na ko yàlla defal jàmm te journaliste yi ngi dimbali ma parce que li ma sol dafa tàng te boo leen ma demee damay bëgg a dee bi euh, bii de leen bi de nee na trois bières Papa Dieng suñu mbokk yi Toumane waaw waaw suñu ma jàngi